dikkati na Macky annule tout lii la Sud Quotidien daal di xëyee Le Soleil yéen kaay naan kon xanaa présidentielle bi ngay wax wala en tout cas date ban ko jàppoon 25 février dootu ca amati moom président Macky Sall daal dina koy fubal ne ko jàllal Sud Quotidien ne ko déet décret ba woowoon corps électoral bi moom la président Macky Sall xotti xotteet réew mi Quotidien naan kon daal suux réew mi nag ci violence goo ni maar day taali turbine yéen kaay naan leen ma ñëw maa mën maa ëpp doole ma xamal leen ni élection présidentielle 2024 ci réewum Sénégal dootul amati février 2024 waaye daq nañ ko ba ñaar fukki fan ak juróom ci weeru août 2024 bii maanaam ci juróom benn weer moom la sàll ngaari lam tooro buur géde daal di dàq yi la élection yéeni kaayib des média bi naan mante Washington ak Paris ña nga teggat président Macky Sall naan kon tëggal sàll tëggal tëggal élection yi nu mu gën a gaawee ci réewum Sénégal coowal njuuj njaaj gi nga xam ne am na ci it na daal di leer yéeni kaayib des média bi naan man 1963 ak tey la ñu gëj a dàq élection ci réew mi dàq nañ élection yi yi moom nee ñu dañuy campagne fukk juróom ñeenti la ñu toll daal di leen di gaze démb ba maar day yi Aminata Touré ak Anta Babacar Ngom ñu daal di leen di jàpp gannaaw bi ñu daal di leen di bàyyi moom Anta naan dara campagne rek élection présidentielle moom tëgg ci réew mi rek dàquñu tey ñu ëllëg yéen kaayu des média bi naan man signal bu Walf TV ñu daal di koy ajandi Walf fi mu ne tàkkatul liggéey bu ñaaw boo xam ne Moussa Bokar Thiam daal di da koy def Sud Quotidien naan leen Macky annule tout mooy wax ji Sall daal nee na élection présidentielle du am vingt cinq février tribune yéen kaay naan leen dellu leen juróom benn weer ca gannaaw moom Bougane Gueye Dany artu woon na ci wax ci naan leen ñoo ngi jëm ci élection présidentielle waaye xolub sàll boo ko xaree fi mu ne dàqee élection moo fa nekk ñu salfaañe ak ak yelleef ñu bari keroog bi nga xam ne parrainage bi am na gaa yaa nga doon artu moom Bougane mii artu woon na naan mbir mi jaarul yoon kan moo ko fekkoon ca combat kenn naan leen processus bi jaarul yoon te fi mu toll nii dinañ def seeni pexe def seen kéemtalaay kàttan ba dàq élection yi ñëpp ni cell tey jii nag mbir mi màbb na suñu kaw ku ne fi na yaa ngi force ab damit bugaan naante ba ma naan boo may moytul daañu dàqee élection yi gaw ma woon ni nag Sall dina jël démocratie bu réewum Sénégal daal di koy dëggaate nii salfaañe ko ca xat ci xatee ko moom bugaan na nga naan observateur bu Union européenne faaw nag ñu xool segg gi président ma ki Sall di segg ñamuy sëggal bëre laataa ñuy wax lenn ma Lamine Massaly naan opposition bi pourtant àndoon na ci report Abdoul Mbaye naan dàqub élection bi mën naa tax nag ma la injustice yi nga xam ne ñenn ñi amoon nañ ko daal di deñ fa yallaahu l'observateur naan cim ndaw image u Sénégal bu yàqu ndaw image u Sénégal bu nu salfaañe ndaw démocratie Sénégal boo xam ni tër nañ koo daal di ren rendi yéene kaayub futur média bi daal di xam le ni daal di nañuy sóob Sénégal ci ëllëg goo xam ni bër setagul kenn xamul fi mu ne réew mi ci yenn loxo lay tàbbi dialogue national boo xam ne moom président Macky Sall woote na ko opposition bi ku ca dem jël nga risque moom président Macky Sall mi ko woote sax mi ngi ci risque assemblée nationale ma nga xam ne ma nga woote tey wooteeb loi boo xam ne bu bon bu yées ndax nag dañu ne élection présidentielle ci juróom benn weer lañ koy yokku waaye nag am na amendement boo xam ni def nañ ko ngir talal ko ba ci benn at mani la Le Quotidien Le Quotidien naan kon yat wa dal na weñ loxo gi ñu weñ loxol sénégalais yi daal nay mujj antu heure bu ma neex laay dem gi daal dinay mat ci réew mi Le Quotidien Le Quotidien naan kon moom président Macky Sall daal nee na faaw ñu lañ bët la nga xam ni moom moo am ca conseil constitutionnel commission des lois daal di daar daar validé bëggu président Macky Sall tey jii voté à plénière opposant yi daal di ne décret ba ca cour suprême lañ ko jëmee moom président Macky Sall daal di dëggalaat Amadou Ba Walf Quotidien naan ko déet Amadou Ba kay mooy béyub sarax bi ku ñàkk kay Amadou ngay ñàkkale fi mu ne bés bi le jour naan kon fi ne defan jëm ak réew mi yéen a ngi seetaan waaye ndox naru faa am ndax bokk yaakaar ak wallu diggante juróom benn weer ak ñaari at yu président Macky Sall di toogaat la ñu bëgg opposition bi niki démb daal di xam le ni 23 juin lañ fas yéene amal tey ci assemblée nationale opposition ba ko bëgg ñu daal di dal seen kaw ba maar day taali loo diggante président Macky Sall ak Amadou Ba mbaaru dañ ko gantal yéeni kaay bi naan man Abdou Latif Coulibaly manu tuumaal magam daal dinay démissionné ci gouvernement bi professeur Abdoulaye Dièye ne lañ war a leeral kay mooy ñaari fan ci weeru avril gannaaw jébbalante léenge kan mooy doon président bu réewum Sénégal monseigneur Benjamin Ndiaye naan nañu respecté constitution bi mooy dëgg moom président Macky Sall naan waaye nañu wootee dialogue daal talal loxoy ñu waxtaan bés bi naan kon yàkkanay waxtaan Sall yow président Macky Sall 2011 yaa fi toogoon ne benn fan sax benn ma ni la kenn mënu koo yokk mandat kenn tey jii nag talalal nga sa bopp juróom benn weer at ba ñaari at yéene kaay bi naan man en tout cas bi jaaxle na ci am Sénégal ni ki tey laas yéene kaay naan kon tey assemblée nationale it la fa am war a indi njàqare wal fu ko di jee naan kon kaay leen fi mu ne kay démocratie Sénégal moo daal di faatu suul nañu ko tribune yéene kaay naan kon démb ñu bëggoon joyanti démocratie ñu daal di leen di caxat caxatee ci bu metti moom professeur Daouda Ndiaye ca la bokk ñu Ndiaye ñu daal di koy gazé daal di koy gaañ ci bët daal di koy gaañ it ci loxo professeur Daouda Ndiaye naan lu toll ci fan fanweer ci ay sandarme ñoo ma caxat caxatee samay nit sandarme yi daal di leen di jàpp naan fi mu toll nii seen bët lëndëm na toog ci nguur gi jaral na leen lu ne ca conférence de presse bu mu doon amal ci samedi gii moom professeur Daouda Ndiaye ma ca doon xamle ni élection présidentielle yi deesu ko dàq 25 février rek l'info yéene kaay naan kon président Macky Sall yoon wi nga jël baaxul jàddal Sall yoon wi nga jëmee Sénégal baaxul Walf Quotidien naan kon wax ana Idrissa Seck cellam gi daal tey na xel l'enquête quotidien naan kon fi mu ne Sénégal daal bàyyee nañ ko yàlla libération naan kon déet askan wi koy jëlal nañ seen bopp mbir mi Sénégal ni ki démb daal dinay salfaañoo ba maar de Italie manifestation yi mel ni tulleeg màlle réew mi naan kon Sénégal soo ci violence goo xam ni maar de Italie vox populi naan kon archevêque bu Ndakaaru xalif général des mourides imam ak prédicateur yi nekk ci réewum Sénégal ak yeneen kilifa diine ña nga naan président Macky Sall deltul président Macky Sall jël na ko day daal dinay jaxase askan wi waaye tam caxat-caxatee ni caxat-caxatee candidat yi ak planning ba nga xam ne noonu la ñu war a jaaree RTA si tey na xel mu njaay naan waaye ak lu mën a am la nga xam ni wax nañu moo am ca conseil constitutionnel dees na ko leeral saytu ko mooy dëggit l'info naan kon Sall yoon wi nga jël baaxul 24 heures yéen kaay naan kon benn politicien wala benn coalition politique wala benn personnalité warta tax jàmm ji am Sénégal ñu daal di koy gàntal warta tax Sénégal ma la nekk ci fitna kenn xamul ëllëgam Dakar Times naan kon li leer ba leer mooy yéen politiciens yéen la waxal gaal gi ci boppam bu leen ko wengal ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm SeneInfo International SeneInfo International abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér wóor